salam salam sama gars yi ñaaw Sonko la wa mais mais xaru aju sal xaru national la wala xaru xaru xaru xaru mondial la parce que man xaru bi dama koy dégg ci audio yi rek xaru patriote yi niñ focus bayil audio yi ñuy dugal ñu suñu yon newu ci ñam ñoo teggoni seni seni seni seni mbir ba dem ba si bir ñu commencé bañante lolu seni seni seni problème ñun suñu yon na ci baña nek nañ focus concentré wu jéem a préparé wu daal suñu carte d'identité xam nga pro ñëw ñu pare parrainé ko jéem a dem élection xam nga jël réew bi incha allah suñu yoon new si si si Adji lu mu def ak lu mu def deful suñu yoon new ci waaw Adji Sarr rek ngeen gis am na ñoo xam ne seen mbir a ngi ñëw parce que si naa mu xam ne seen mbir booy ñëw am na ñoo xam ne duñ feeñ télé ñu fenn te dañ doon ci mbir mbiru Adji Sarr bi dañ ci doon wax mel ni ñoom dañ fekkee woon affaire bi di si wax di si waat nag mu jaral leen ñu naan non waa kii euh, violol booy mais mës na mës na see kii am am na yenn yoo xam ne bu la wóorul bu si wax gis na yàlla lu mu wax si njaaloo ah nit yi ko dul fekkee nit yoo xam ne xamantewuñu yëgoowuñu pour témoin njaaloo kese la ah yow ngay témoin loo xam ne fekkee woo ko di fen di toog si grand place yi di fen di wax loo xam ne sa yoon si am na ñoo xam ne seen bés a ngi ñëw ñoo xam ne feeñuñ télé seen bés a ngi ñëw ñooñu ñooy gën a toraxle sax Adji Sarr parce que ñooñu ñooy gën a ñooñu ñoo gën a yéeme ñooñu fekkee wuñ Adji Sarr sax moom moom moo tëgg affaire bi mais ñiy fekkee wuñ